formation formation euh, depuis le 4 septembre lañ ko commencé won ba légui lay jeex kon les bases de de de l'ouvrier de des compétences les compétences de base de l'ouvrier électricien ñi leen ko jàngal man nañ leen ko madame Dibala depuis sept ans

mairie bu nekk indi dix ci ay fukki xale ci ay ay ndawam ni ñu ko defee woon ci plomberie tamit ndax loolu moo jiitu woon mm-hmm. euh, mairie bu nekk joxe na fukki xale yoo xam ne jàngal nañ leen plomberie loolu weer wala passé lañu leen jox seeni i seen i seen attestation ak seen i kit ba ñu dem yéen yéen ci tegu woon ñii ñoo ci yéen yéen ci tegu woon loolu tamit loolu lañ leen defal defal nañ leen formation technique defal nañ leen formation en entrepreneuriat et leadership yooyu defal nañ mm-hmm. leen ko pour ngeen mën a demal seen bopp bu ñu paree ci formation bi ginnaaw bu ñu leen joxee seen attestation itam dañ leen di jox kit boo xam ne bii moom ngeen di ubbee seen métier mm-hmm. bu ngeen dajee ku leen jël dans une entreprise falilahi alhamdu bu ngeen dajee ak koo xam ne daf leen na ñëw daf leen na installé leen ma wala réparé leen ma falilahi alhamdu lu ci mën a doon rek lu mu ci mën a doon rek na fekk yéen ngeen man man ko def ngeen def ko ak def def def ko ni mu gën a rafete ngir man ci am tamit loo xam ne lii dana barkeel formation bi ñu tëj nii tey def nañ ci lu toll ak euh, sept millions hmm. moom la ñu joxe euh, ñu gàddu woon euh, lépp loo xam ne li intrant la gàddu également lépp loo xam ne li mooy honoraire ñi ñuy war a fay formateur yi centre bi gàddu itam li nga xam ne lii mooy kit yi nga xam ne moom ngeen war a liggéeyee sacoche bu nek ku nek am si sacoche am lo lu xam mom mom lay mom lay gaddu pour man ci liggéey loolu yëpp euh, GFA mom moko gaddu GFA bureau d'étude le allemand ci bo de set mo gën mo moo ëpp doole ci bureau étude d'étude allemand yi cabinet la cabinet privé buy liggéey ak GIZ di liggéey ak Union européenne ak yeneen bailleurs fi ci Sénégal amna fi lu ëpp ki projet bi programme bi ñu nekk nii nag mooy programme réussir au Sénégal moom dafa jógee jógte woon di former xale yi di jàppale gouvernement du Sénégal ci former ay ndawam ci métier yoo xam ne dinañ leen mën a dina dina mën a tax ñoom ñu taxaw ba mën a am liggéey. Nous sommes très fiers d'être présents ici et de recevoir ces attestations. Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance aux membres et directeurs de la GFA ainsi qu'à leurs collaborateurs par la suite, nous disons merci à Monsieur le maire de Bargny, Monsieur le maire de Djamnyadjo, Monsieur et Madame maire de Sebihotan, qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette cérémonie dont nous gardons longtemps des souvenirs émus. Nous adressons également nos très sincères, nos très sincères remerciements au Centre sectoriel de formation professionnelle de Djamnyadjo qui nous ont décerné cette formation non seulement par la qualité et la rigueur. Je remercie personnellement mes frères, camarades ici présents, avec, avec qui j'ai partagé de très bons souvenirs. Courage à vous et bonne continuation. Je vous souhaite et nous nous souhaitons tous un bon parcours et une réussite totale dans nos vies et nos projets. Enfin, nous faisons du maximum possible pour ne pas vous décevoir. Nous travaillerons dès que nous quitterons ici et n'arrêterons pas d'aller encore chercher et acquérir plus de savoir afin de marquer les pas pour l'avenir de ce pays.